non bàyyi ma terminer su l'État état bi défaillir mm. su a état bi moo défaillir ñun dañuy tribunal arbitral gis nañ ko dans la la la les mines de la Falémé les sud-africains bi état bi défailliré dañoo au tribunal arbitral nous condamné ñu état Sénégal nous, ngi koy fay ba nous, mais ñun bi Mittal défailliré ñu aller ko tribunal arbitral Nous, jox ñu raison 250 milliards Il y a jël responsabilité le président Macky Sall et son ministre des Finances ne def nañ ko 75 milliards. non non au nom de quoi alors que ñun ñu ngi fay nañu ko ndam c'est-à-dire il faut que l'État il faut que l'État arrête il faut que l'État arrête de couvrir ce banditisme financier sur le dos du peuple sénégalais. non non non non non ça ne s'est pas passé comme ça xam nga affaire bi da ngay xool xam nga tribunal arbitral boo fa demee. léeg-léeg ci 30 secondes. boo fa demee. dañuy dañuy dañuy sele affaire bi yoo xam nga dañ koy sele inspecteur des impôts nga dañ koy sele bu ñu ko sele affaire bi kenn du ko kan mooy perte. Sénégal moy perte parce que ñun dañu am production bu ñu wara transformer Sénégal moy perte affaire euh, Metal bi nga wax aussi le tribunal n'a jamais attribué 250 milliards à l'État jamais du tout. Ah bon? jamais mais mais il faut il faut être cohérent oui, parce que ñun Kumba Rusus Kumba Rusus Kumba Rusus bi ko jëlé bi jëlé affaire bi parce que euh bi bi ko Wade nungoo par force. parce que ni les intérêts xaw ma nungo ko par force jaay ko jaay jaay ko ki Kumba Rusus bi mu ñu plainte ñaar lañu fay. ñaata la ñu bi ñu porté plainte ñu dem tribunal arbitral 49 milliards lañ ko fay. mais donc sur la même affaire nan nga bëgg ñu fay ñu ñu fay ñu 250 milliards. amul c'est pas possible lañ ko joxoon Mittal c'est bokkul. non joxe wuñ ko 250 milliards. état attendez attendez dafa jox Kumba ressource. Kumba ressource commencé installé wu Mittal ñëw teg plus sur la table ne damay investir 250 milliards. ci jamono jooju joxe investissement bàyyi ma terminer ci jamono ah boobu ñu créé une loi spéciale la 2007 25. ma article mais c'est une loi dangereuse ñu sommes désormais ab entreprise bu fi investir 250 milliards da ngay tous les avantages cumulés du code des investissements du code minier et tous les autres codes qui donnent qui donnent des dérogations on avait dit les c'est grave c'est sur cette base là cette promesse d'investir 250 milliards qui est une promesse synalagmatique nous devons ko contrat avec l'État du Sénégal sur base de la quand Arsenal a failli ci base boobu lañ ko devant le tribunal mais on ne nous a pas condamné à payer ah, on n'a jamais condamné Mittal à payer 250 milliards amul l'oul musul am Sonko amul ah, c'est ça amul euh, ci la télévision leader Sen TV ñu dem reji en publicité del soit ci mbokk jullit yi weeru koor ak aji màkk dañu am solo lool ci jullit looloo waral joni joni fas yéene leen taxaw bu baax di maye fukki billet màkka fii ba le 30 juin 2016 yemul foofu de ndax bés bu nekk joni joni dina tànn ci ay clientam jox leen suukaru koor ak ay enveloppe pour 100 000 francs

jópp ci koppar war nañ ko ci def ñu ngi koy wax waaye liggéey ba dooragul ba léegi am na lu ko gàllankoor at gannaaw ba ñu tegee xeer wi ak euh, léegi euh, Sonko dañuy waxtaan ak yow rek lu aju ci ci budget bi trois mille nangam milliards ñu di ko tiitaroo alors ko ñu bari jàpp nañu ne ñun suñu musiba la ñuy tiitaroo euh, ndax ni ñu moolee budget bi dëppawul ak am amu Sénégal waa xam nga loolu sax d'accord ma ci man jàpp naa ni budget bi

tay so jélé liñu sécuriser moy quelques grandes entreprises ak les salariés yi nga xamné ne mënuñoo mucc secteur informel réew mi kenn fiscalisé wu ko soo seetee li wax les niches fiscales yi nga xamné ne exonération yu doy waar yu nekk ci code minier ak yenen ak yenen lool rek mënon na tax ci walu impôt rek ñu mëna a mobiliser lu mat 3000 milliards mais débat bi ni ko posé nonu la moy gouvernement bi def na beaucoup de communication C'est naa ministre des finances ñëw à la RTS Né budget record etc. Nous ñu ministre du budget le euh, secrétaire général gouvernement conférence de presse mais ndam soit dañoo régime bu amul bilan ba nga avons lu ne nga bilan la wala dañoo dañuy def xam nga ne ci bilan bi bilan soo budget bi budget bi amul progression extraordinaire par rapport ak li fi budget bi par rapport ak budget daaw 3022 milliards yi soo ko comparee ak bu daaw bi 153 milliards lañ ci yokk ma njëkk wax ni budget prévision la dañu naan lii la ñu bëgg a am ren ñu xayma ko à partir de li ñu amoon daaw xool tendance économique yi waa DPE def seen progrès seen seen seen seen projection ak yooyu ñu ne lii la ñu yaakaar a am ren mais yaakaar googu mësuñu ko am presque soo seetee at wu ne dina am minimum ñaari loi de finances rectificative li muy c'est rek les prévision yi parce que bu avons bi rek 100 milliards de prévisions yi ñu defoon ñaari loi de finances certificatives. donc prévision la benn le budget est 5,53% 5,53% 153 milliards en valeur et en pourcentage 5,53% Société budget daaw 223 milliards de ci progression bi ñu des fonds sax parce que c'était 12 nous avons vu ba légui Ablaye Wade bi muy ñew en 2000 budget bi 587 milliards la won, la fi PS bay won bi muy quitté dépassé nañu 2000 et quelques milliards Donc le budget fay progresser c'est tout à fait normal parce que ce progresser, est rek moy économie réew ma taxaw na administration yi ñu etc. etc a rien d'extraordinaire dans ce budget Sous tes chiffre 3000 nak mo len toujours firnde bi may joxe moy da nga bi ñuy nekk xale dañoo yàgg dégg l'an 2000 l'an 2000 l'an 2000 ba jàppoon nañ ni l'an 2000 affaire bu extraordinaire benn at la woon rek comme at yëpp budget bi bi ñuy jël indépendance 17 milliards la ñu démarré woon en 1960. muy progressé 19 milliards 19 milliards. recette fiscale bi on doon 17. ñuy progressé di progressé di donc c'est normal chaque année ñu yokk li yoon mooy d'ici 5 ans ñu egg 5000 milliards wala feneen ak feneen. donc man gisuma lu extraordinaire sous des ci forme bi rek defuñu fi exploit buñu buñu y a des années En ay années 2005 ma on a eu 15 de progression budgétaire 2005 nous avons dépassé 7 de progression budgétaire donc nous avons ni jarul tout cet tintamarre maintenant nous avons nañ dugg après ci fond bi ñu analyser budget niñ ko tëralee ak lan moy orientation budget bi li ci forme bi rek la ko doon wax. donc euh, budget bi quand même il faut que xam nga le budget ça retrace l'ensemble des recettes et des dépenses bo bo démé ba def ay projection budgétaire ah hein, projection budgétaire 3022 milliards nga xam ni yow man nga tirer ci ressources internes près de plus de 1600 milliards leneen li nga jéggaani ko ñu wóolu la parce que buñ la la wul tu peux pas gérer ton déficit donc mon mo lay won ni que. Ah, c'est une gouvernance fiable gouvernance fiable c'est que euh, générer autant de ressources pour def budget parce que budget c'est pour quand même euh, def qui euh, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations ah, vraiment donc bu une évolution 3 3000 milliards moins qu'actuellement, actuellement le budget c'est-à-dire on rentre dans une dynamique de productivité de productivité et tek nañu tek nañu ay ay programme yi ça peut attirer un, programme de gouvernance fiable une stratégie crédible il y a que ça qui peut faire attirer les investisseurs publics et privés donc le budget est c'est extrêmement important parce que le budget de vraiment définir quelle est la stabilité stabilité économique de quoi est-ce que le il a assez de capacités pour régler problème tel problème mën régler telle route mën régler tel investissement mën régler éducation mën régler parce que toutes ces ressources là je ko pour dara dañ ko pour régler les les les problèmes les problèmes de l'éducation les problèmes de la santé les problèmes de de de de l'énergie les problèmes de transport est-ce que ko ci nga mais jar ko parce que parce que xam nga xam nga xam nga parce que population bi ñuy bi nga xam confiance il faut que qu'on qu'on qu'on apprenne à aller leur expliquer lan moy budget lan moo fi am man sax je crois que communication biñ ci biñ ci def doyul. ah doyul war nañu gennat dem ci radio yépp gën a def communication décentralisé ko daal di koy tag par secteur c'est-à-dire le budget mën nañ ko mën nañ ko def répartition répartition euh, par territoire territoire bu nekk liñ fa liñ fa namm ci budget bi ñu dem expliquer leen gën ko expliquer pour nit ñi xam ko parce que nit boo bëggee mu def un contrôle citoyen il faut m'expliquer expliquer le budget prévoir pour dépenser le expliquer bu Si bu ko un contrôle citoyen nga dina ba xam li ngeen je crois que le budget là là le le le le volume euh, communication ça, ça, ça, ça, ça améliore simplement la démocratie. Mhm. Ah, ça améliore voilà ñi ñu dénk li uh-huh. ñu dénk ñu expliquer le budget bi voilà bu ñu jógee ci forme bi léegi day ñëw ci ci fond bi eh, est-ce que euh, budget bu bu Sénégal depuis Matizalem bon on nous dit que ni budget prévision là c'est vrai que ni prévision la euh, li ñu nësër euh, ci at mi moom lañ ci moom lañ ci mais bu ñu xoolee ci ci fond bi est-ce que dëgg dëgg dëgg ji la population sénégalaise xam nañ ko wa xam nga euh, le may ci fond bi wax communication euh, budget li les les ressources internes te loolu mooy li contribuer man li contribuer li contribuer le premier lien de citoyenneté mooy cette contribution qu'on fait parce que dañoo beaucoup ci réew

soo ko comparé ak ni ñuy fonctionner depuis lors nga bëgg koo def benn exploit di ko jaay nit ñi foofu laa mais pas dans la communication je considère que la communication est insuffisante la communication citoyenne de manière générale il faut que les citoyens comprennent de plus en plus damay wax toujours damay dem ci yenn jotaay yenn saa yi daa may ma xool ay paysans ay maraïeuses, et est-ce que da ngeen di fay impôt ñu ne ma non ñun du ñu fay impôt ma leen pourtant fay impôt parce que impôt direct bi ngay fay mën nga ko bañ a fay yow parce que amoo revenu salarial wala lii mais boutique bi soo fi duggee loo jënd rek am na TVA carte crédit sax soo ko jëndee yaa ngi fay TVA donc yaa ngi fay impôt impôt googu la ñuy dajale ñun ñëpp yóbbu ko assemblée nationale ñu ne lii la ñu war a def ci santé lii la ñu war a def ci infrastructure ak leneen ak leneen donc communication boobu c'est la communication citoyenne je ne parle pas de ça bàkku bi laa wax ak jaay sa bopp ci loo xam ne exploit amu ci. Hmm. maintenant dans le fond budget bi budget PSE la budget bi bañ nañ ba ministre des finances bi muy bind sa lettre d'orientation à tous les départements ministériels indication yi mu joxe mooy toutes les programmations dafa war a tënku ci benn engagement yu bëri yooyu ñu jëloon ci ci région yi fu ne ñu dem diggee fa nangami milliards ñaareel bi mooy euh, programme d'action prioritaire PSE bi ñetteel bi mooy seen engagement yi ñu jël vis-à-vis des partenaires yi leen dimbale ci PSE bi donc ils ont essayé de faire budget boo xam ne budget PSE la or budget PSE hein? budget austérité ou le budget ajustement même si les gens ne veulent pas qu'on parle d'ajustement Élément, yi ma ciy firnde yi ma ciy jël rek dama koy ci débat depuis quelques temps ci masse salariale bi fonctionnaire yi rek hmm. te laal les dépenses politiques laal xam le budget de la présidence de la République a augmenté de 29 les transferts en capital nga les fameux fonds politiques ils la de 29 institution yi ñu créé fii te amu fi benn benn benn xeetu njëriñ ñu teg fa clientèle politique di leen fay xaalis bu bëri ak ay agence nga xam ne ay 5 millions la ñuy fayeeku bëgguñu ko laal. monsieur le ministre sax dinaa ko fa dinaa ko fa sànni tuuti truc xam nga Macky Sall engagement bi mu jëloon ni gouvernement am du dépasser 20 te léegi ëpp na 40 mu dem ba créé ay secrétaire d' état te ñun suñu constitution prévoirul dans le gouvernement ñu war a mun am ay secrétaire d' état. Le gouvernement est, dirigé par un premier ministre et conseiller de ministres. Voilà la fonction. Mais, je, les qualifié de dépenses politiques de Bougounikola. Si budgets. le budget, nous ben heure supplémentaire. Nous avons enveloppe, nous avons gérer, calibrer. a une indemnité. Nous a une nouvelle indemnité qui est fonctionnaire qui est Et mieux encore, indemnité qui est gelée sur base recrutement nous avons dootuñu recruter pour remplacer les dépenses départ à la retraite avec les corps militaires qui est les trames du budget Nous, avons réduire la masse salariale et pourtant il y a 30 milliards d'augmentation dans la masse salariale Dans 12 milliards il y a 30 milliards d'augmentation ne c'est pas les travailleurs les salariés mënul pas pas. Ce Ce qu'on sait, c'est que sur des dépenses le personnel politique on recrute à tout va on met dans des ambassades superposées avec yenen yenen personnel politique on crée chaque jour de nouveaux de nouveaux postes yo xamné ken xamul lu parce qu'il faut que je satisfasse Test un bi il faut que ko fu mu tel tel truc il faut que je ko fu mu c'est ça le problème deuxième élément ci budget bi toujours dans le fond mun na dugg ci yu bari mais damay jël ñaar rek moy endettement bi on dit l'endettement est viable et viable par rapport à des critères d'accord 70 moins de critères nga nous sommes un pays pauvre très pauvre l'économie est très fragile il suffit ñu am pluviométrie bu bonne on perd 3 points de croissance nga pouvons continuer di de di Macky il avait trouvé l'endettement autour de 30 et quelques aujourd'hui on a dépassé 50 on continue à s'endetter on va emprunter 531 milliards pour rembourser le service de la dette 591 milliards sur le book, sur dañuy leb nous avons ñu ci ay intérêt pour ñu dem fay bor ñaari aspect rek wane crédibilité budgétaire et orientation mais évidemment comme PSEB, bi la servir te e on veut demander des efforts parce que nous, euh, ñi ñuy jox contreparties. contrepartie bi Moy, mobiliser je crois que c'est 324 milliards ou quelque chose comme ça pour nous, am il faut nous dem xool fonctionner so c'était liñ leen FMI di centre, heureusement am na yoo xam président Macky Sall da mhm. même les subventions sur l'électricité, la masse salariale est trop lourde c'est pas vrai la masse salariale du Sénégal est supportable nous avons l'un des ratios. sur un budget de 000 milliards. je vous donne je vous donne des ratios je vous donne un ratio je vous donne des ratios pour terminer. soo les masse salariale sur recette fiscale. Mm. Il faut, faut, prendre, il faut pas prendre seulement. Il faut prendre l'efficacité, l'efficacité. L'efficacité de la dépense salariale. Ça, c'est un, autre débat. Ça c'est un autre débat, Mais si on devait comparer l'efficacité de la dépense salariale par rapport à l'efficacité de la dépense politicienne, wallahi dépense salariale peu efficace attends je vais répondre rapidement sur ça quand même non non da je donne mon point de vue sur ça uh-huh. le budget quand même euh, ça a été bien moi je trouve que c'est très bien que le ministre des Finances communique sur le budget. pour moi, je trouve même qu'il n'a pas assez communiqué. Il faut que nous communiquer, décentraliser la communication. Nous, le budget, il faut que nous la mobilisation des ressources internes xam le budget dafa des ressources internes des ressources extérieures la mobilisation des ressources internes vraiment c'est exceptionnel c'est exceptionnel Les impôts, les wax les sociétés qui nga qui tirent ñoo fonctionner tirer comme 200 milliards et tout ça Les ressources internes yi dañ ci privilégié vous avez investissement bi actuellement les 58 presque ressources internes lañ koy investissement budget c'est un budget qui cadre avec nos nos nos potentialités c'est-à-dire qui cadre avec nos possibilités nos possibilités financières Nous devons ñu communiquer gën a communiquer nit pour wax leen ni budget bi ñoom lañ ko fi ñoom lañ ko fi ñoom lañ ko pour que nous aussi ñu am ce qu'on appelle le patriotisme fiscal nous fay impôt ñu nous ni que affaire bi lii la tali bii lañ ci bu ko defee nit ñi sawar a fay impôt moo ñu war def plus de communication mais il faut que ça commence par ngeen joxe exemple comment la communication maintenant maintenant benn exemple rek s'il vous dama koy saraxal foofu rek. il faut ah. que. Hmm. ñu commencer par joxe bu est-ce que xam nga ni tey. Hmm. député assemblée nationale yi nga xam ne voter la loi fiscale. wax man nu may fay impôt yow nooy fay impôt ak keneen. est-ce que xam nga ni ñoom du fay impôt. Ah le questeur ne ne ne prélève pas les impôts on ne reverse pas et l'OLU, depuis aussi longtemps qu'on remonte le président Macky Sall a été président de l'Assemblée nationale Nous avons fait des def ordre de recette ñu fay li ñu war a fay kenn du fi fay impôt ci député yi bu ñu jógee dem di nationale c'est ça. non xam nga xam nga c'est les salaires xam nga l'impôt mhm. c'est les salaires normalement c'est seen faute le quoi mise des finances des yéen yéen les services financiers parce que parce que parce que parce que parce que il faut faire les il faut faire les retenues à la source c'est pas des citoyens c'est des ah, fraudeurs. Ah, bah, bah, bah, ils ne ils sont pas les seuls il faut il faut ma continuer xam nga problème yi la politique la politique de l'économie ñom ñoko ko yore les routines ni ñu def ba mëna faylo fonctionnaire yépp mëna faylo fayloo ñëpp def leen nonu mo gën ngeen di wax personne ne peut actuellement pourquoi entrepreneur bi du dem fay impôt de son propre gré mais parce que y a pas de contrainte bu amul woon ñu ne booy soumissionné appel d'offre ñu ne indil casier fiscal ñu bëri duñu fay. il faut créer il faut créer il faut créer il faut il faut créer il faut il faut créer des contraintes c'est votre rôle. ça suppose que voilà que ce que je dis des fonctionnaires de fulen sen liguey de len sen liguey il faut aller les imposer. xamoo système bi nu muy doxé il faut aller les imposer le système ne marche pas comme ça. le système de la retenue à la source. c'est le questeur. de l'Assemblée nationale bu fay. mais questeur bi bëggul def ngeen ngeen ngeen ngeen bind ko. attends boko ko bindee. ñu ne fayuñu non non non non. voilà les, les, leen bind def leen Les, les, les, les, les, les. économie bi. Ah, ah. li ci gën a important C'est ci important. mooy la mobilisation c'est-à-dire la mobilisation des ressources internes bi ñu def ci ci ci ci budget et deuxièmement budget bi li ci gën important cohérence c'est-à-dire alignement stratégique du budget bi am ak PSE. budget bi dañ ko trois axes sur les trois axes axe transformation structurelle ñu faire fa benn montant axe euh, capital humain ñu def bien. benn acte acte euh, gouvernance paix sécurité état de droit ñu def ci montant. donc le PSE le le le budget est là pour la mise en œuvre vraiment efficace du PSE. voilà Il y a vraiment une stratégie ñu leen ce que je propose. mooy Sonko ci côté économique am na lu bari loo xamante ni war nañ ko ci war nañ ko ci mën a wax euh, donc li gars yi di wax naan face to face mënul mënul ñàkk euh, ci li ci réew mi euh, ñu waxtaane lépp loo xamante ni dafa aju ci ci wàllu budget bi niñ ko war a muuleeg lépp décorté ko ba nga xamante ni ne nit ñi dinañu xam li nga xamante ni moom moo ciy rëq-rëq ndax xam na ni am na yoo fi junj yoo nga xamante ni téléspectateur bi toog di seetaan wala auditeur bi toog di déglu am na xóotal bi mu ci gënoon a bëgg waaye waxtu yu moo ñu ko dul may waaw loolu mooy peut-être problème débat wax naa ko wax naa ko sax bi ñuy wax nee naa la est-ce que dinañ mën a dugg ci biir. ba sori. parce que lu ñu war a wax cax ci ci réew mi dafa bëri te émission bi mu neexee mooy peut-être suñu boolee les questions strictement politiques ak les questions de gouvernance teg ci les questions économiques man pour man les acteurs politiques de ce pays dafa jot léegi bëri na acteurs politiques yoo xam ne surtout ci seen i parti ñoom tey mun nañ fi toog di suba ba ngoon jot. naan euh, leader sangam nangam nangam te soo leen càmbaree ci ci li nga xam ne mooy war a askan wi mooy li war a intéressé gouvernance ak liy jëmale kanam mun na ci wax ñaar wala ñett looloo yàq politique gu Sénégal ma rafetlu sama vis-à-vis mm. wax dëgg yàlla débat bi neex na te xam naa ni galgal na ma galgal yu métti mais mais mais ñun li ñu bëgg rek mooy mm. débat yooyu mu doon débat yu gën a yu ñu gën a démocratiser te débat yu mel ni émission yu mel ni dañuy permettre ñu gën a voilà ah, ah, il faut que li mu wax d'accord il faut que ñu temps pour expliquer parce que le débat aussi c'est pas pour nous c'est pour les les téléspectateurs ñu xam li état bi parce que amuñu bilan nous avons dans tous les secteurs agriculture liñ depuis l'indépendance kenn mësu ko ci infrastructure li depuis l'indépendance kenn mësu ko ci def. éducation éducation éducation éducation dama éducation. éducation defagu leen ceer bi Mamadou Dia nag Mamadou Dia nag. voilà programme bi mu amoon xam nga jotu ko réaliser. programme bi mu amoon actuellement y' a que le président Macky Sall. qui en train de de de de xam naa ko kay. c'est totalement différent le même programme mu leen di gërëm di leen sant TV. Euh, euh, ponk yu bëri bëggoon wax. Ila Touba Ila Touba bi. Ila Touba bi commencé na. 400 ah, 480 milliards 480 milliards non 416 dafa am lepp bu contribution de état bi 15 euh, les 85 Le lieu en place. ñun li ñu un banque centrale accord de financement yi entreprise il a amené au moins 300 agents am na 3 3 dépôt yi ñu def ñi commencé ñu recruter fay nañ assurance bi yépp gis nga loolu ouais ila touba bi li ne ci biir yépp hmm. dañuy organiser benn émission boo xam il faut ñu organiser benn émission waaw parce que euh, gis nga yàkkamti ak bugg a am bilan ak am fixation ci réélection moo tax yenn saa ñu paraparaxe ba dañuy ficelé ay contrat yoo xam c' est pas dans l' intérêt du sénégal ila touba bi daal mën nañ ko jàppee même bu dee sot na sax ay naxe mbay lay doon non non non non non non non non dinaa la wax ñaar ila touba bi ça rentre dans une logique dans une logique de développement de structure parce que Ila Touba bi bul fàtte ni ñu ngi def autoroute dañ def nañu autoroute euh, Dakar euh, AIBD actuellement ñi ngi def ñu am nañ beneen financement pour du ko def AIBD Thiès Thiès diñ dem Touba bu ñu jógee Touba def nañu euh, Daara Linguère ñu ngi koy def ñi ngi defar Touba Daara Linguère té Linguère Matam def nañ ko donc c'est une route bi nga xam di nga jóge fi dem ba feulé donc ça rentre ah, ah, dans un schéma dans un schéma dans un schéma c'est ça le problème non quand il parle de Bina, donc secteur boo mënti ñew rek nous avons ce que président Macky Sall a fait kenn defa ko ko fi dina ko wax fi ren lenn ci émission bi dinañu toogaat d'ici quelques années ñu wax ci ce sera le plus grand flop en termes d'investissement bo xamné Sénégal def na non mais vraiment dinañu dem sur 416 milliards ci axe bo xamné chinois ils vont pas exploiter Ila Touba ci réalisation bi récupérer investissement parce que xamnañ ni. non, non. non terminer terminer. non non non débat assurance mhm. parce que montage bi ñu Bank montage mais alors, ci débat bi. comme voilà nous le taux de rentabilité interne c'est 35 Si vous avez investissement tu as un taux de rentabilité interne de 35 Vous avez un flop c'est impossible Nous ñu émission euh, la télévision leader Sen qui est place de l'indépendance Nous avons ci àndoon Abdou secrétaire d'État au réseau ferroviaire qui appelle APR euh, Ousmane euh, Sonko nekk président Pastef les Patriotes jàmm ak jàmm ba beneen yon sen émission li ci réew mi la chaîne leader. du magazine Nouvelle Hebdo est en vente. Au sommaire, libération annoncée de Karim Wad par Macky Sall, c'est la capitulation dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite que vont devenir les organes de lutte dédiés à la bonne gouvernance économique et financière au Sénégal. Recron entretien en exclusivité avec Nouvelle Hebdo. Civil parle haut et fort. Libération prochaine de Karim Wad, dialogue national, plan Sénégal émergent, les engagements de Macky Sall, une analyse des forces politiques. Parce que toutes ces ressources-là, pour régler les, les, problèmes, de l'éducation, les problèmes de la santé, les problèmes de, de, l'énergie, les problèmes de transport. Est-ce que tu l'as Mais Jarnoko, parce que, parce que, population bi ñuy liggéeyal bi nga xam ne jox confiance il faut que qu'on qu'on qu'on apprenne à aller leur expliquer lan mooy budget leur moo fi am man sax je crois que communication biñ ci biñ ci def doyul. aboyul ah doyul war nañu génnaat dem ci rajo yëpp gën def communication décentralisée ko daal di koy tag par secteur c'est-à-dire le budget mën nañ ko nañ ko def une répartition. Euh, par territoire territoire bu nekk li fa fa ci budget bi ñu dem expliquer leen gën ko expliquer pour nit ñi xam ko parce que nit boo bëggee mu def un contrôle citoyen il faut nga expliquer ko lan mooy budget lii la ñu prévoir pour dépenser la ko nga expliquer ko bu leer bu ko defee moom mu am un contrôle citoyen nga xam ne dina xool ba xam li ngeen ko dig def ngeen ko war a defu leen ko man loolu je crois que le budget là la hauteur là le le le le volume ak euh, communication biñ ci def ça, ça, ça, ça, améliore simplement la démocratie. Mhm. Ah, ça améliore aussi ñi ñu dénk li uh-huh. ñu dénk ñu expliquer leen budget bi lan voilà bu ñu jógee ci forme bi léegi day ñëw ci ci ci fond bi eh, est-ce que euh, budget bu bu Sénégal depuis Mathusalem bon on nous dit que ni budget prévision la c'est vrai que ni prévision la euh, li ñu nësër euh, ci at mi moom lañ ci moom lañ ci dëxëñ mais bu ñu xoolee ci ci fond bi est-ce que dëgg dëgg ji la population sénégalaise xam nañ ko.

donc c'est normal nous communiquer ba nit ñi budget man c'est pas ça mon problème mais Bakobi, bi qui bi ci def chiffre historique on a fait ceci Il n'y ne bilan nga bëgg a laxasu ci bilan. xam ne xaaral bilan weesuwul nga jël loo ne exploit soo ko comparé ce ni ñuy fonctionner depuis lors nga bëgg koo def benn exploit di ko jaay nit ñi foofu laa doon waxee mais pas dans la communication je considère que la communication est insuffisante la communication citoyenne de manière générale il faut que les citoyens comprennent de plus en plus damay wax toujours damay dem ci yenn jotaay yenn saa yi daa tourner national ma xool ay paysans ay maraîchers ay cetera ma leen est-ce que da ngeen di fay impôt ñu ne ma non ñun duñu fay impôt ma leen pourtant dañu fay impôt parce que impôt direct bi ngay fay mën nga ko bañ a fay yow parce que amoo revenu salarial wala lii mais boutique bi soo fi duggee loo jënd rek am na TVA carte crédit sax soo ko jëndee yaa ngi fay TVA donc yaa ngi fay impôt impôt googu la ñuy dajale ñun ñëpp yóbbu ko assemblée nationale ñu ne lii la ñu war a def ci santé lii la ñu war a def ci infrastructure ak leneen ak leneen donc communication boobu c'est la communication citoyenne je ne parle pas de ça bàkku bi laa wax ak jaay sa bopp ci loo xam ne exploit amu ci. Hmm. maintenant dans le fond budget bi budget PSE la budget bi bañ nañ ministre des finances bi muy bind sa lettre d'orientation à tous les départements ministériels indication yi mu toutes les programmations dafa war a tënku ci benn engagement yu les yooyu ñu jëloon ci ci région yi fu ne ñu milliards bi euh, programme d'action prioritaire PSB, e bi ñetteel bi engagement vis-à-vis des partenaires yi leen dimbale ci PSE donc ils ont essayé de faire budget budget PSB. E or budget PSE hein? budget austérité ou le budget ajustement même si les gens ne veulent pas qu'on parle d'ajustement Élément, yi ma ciy firnde yi ma ciy jël rek dama koy ci débat bi ñu am depuis quelques temps ci masse salariale bi les fonctionnaire yi rek hmm. te bëgguñu laal les dépenses politiques beaucoup laal xam le budget de la présidence de la République a augmenté de 29 les transferts en capital nga avons les fameux fonds politiques qui ont de 29 institution yi ñu créé fii te amu fi benn benn benn xeetu njëriñ ñu teg fa clientèle politique di leen fay xaalis bu bëri ak ay agence nga xam ne ay 5 millions la ñuy fayeku bëgguñu ko laal monsieur le ministre sax dinaa ko fa dinaa ko fa sànni tuuti trik xam nga Macky Sall engagement bi mu jëloon ni gouvernement am du dépasser 20 te léegi ëpp na 40 mu dem ba créer ay secrétaire d' état te ñun suñu constitution prévoirul dans le gouvernement ñu war a mun am ay secrétaire d' état Le gouvernement est, conçu, est, est dirigé par un premier ministre et conseiller de ministre. Voilà la fonction. Mais yo yëpp nga xam je l'ai qualifié de dépenses politiques te bëgguñu koo laal soo jëlee budget bi nee ben benn heure supplémentaire yi nañu enveloppe bi ba pare dañ koy gérer calibrer ko ñaar nee indemnité du am nouvelle indemnité ci ben fonctionnaire ci at et mieux encore indemnité yi fi am ñun dañ koy geler ci sen base recrutement nous avons dootuñu recruter pour remplacer les dépenses départ à la retraite avec les corps militaires qui est les trames du budget Nous, avons réduire la masse salariale et pourtant il y a 30 milliards d'augmentation dans la masse salariale dans 12 milliards il y a 30 milliards d'augmentation Ce c'est pas les travailleurs les salariés mënul nekk foofu Ce Ce qu'on demal c'est que sur des dépenses le personnel politique on recrute à tout va on met dans des ambassades superposées avec des personnels politiques. personnel politique on crée chaque jour de nouveaux de nouveaux postes parce qu'il faut que je satisfasse C'est un il faut que je ko tel tel truc il faut que ko c'est ça le problème deuxième élément ci budget toujours dans le fond ne naa dugg ci yu suis mais damay jël ñaar rek suis endettement on dit l'endettement est viable et viable par rapport à des critères d'accord 70 yi nga nous sommes un pays pauvre très pauvre l'économie est très fragile il suffit ñu am pluviométrie bu bonne on perd 3 points de croissance nga bëgg continuer di il avait trouvé l'endettement autour de 30 et quelques aujourd'hui on a dépassé 50 on continue à s'endetter on va emprunter 531 milliards pour rembourser le service de la dette 591 milliards sur le bouquet, sur dañuy bouquet. ñu avons ñu ci ay intérêt pour nous dem fay bor ñaari aspect rek la crédibilité budgétaire et orientation mais évidemment comme PSB, nous e servir le e on veut demander des efforts parce que nous euh, ñi des jox contrepartie nous pouvons mobiliser je crois que c'est 324 milliards ou quelque chose comme ça pour nous am il faut que nous xool ponctionner so c'était liñ leen FMI du heureusement on a eu le président Macky Sall da koo même les subventions sur l'électricité la masse salariale est trop lourde c'est pas vrai la masse salariale du Sénégal est supportable nous avons l'un des ratios. sur un budget de 3 000 milliards. je vous donne des ratios je vous donne des ratios pour terminer. Soyez les masse salariale sur recette fiscale. Mm. Il ne faut, prendre, il faut pas prendre seulement. Il faut prendre l'efficacité, l'efficacité. L'efficacité de la dépense salariale. Ça, c'est un, autre débat. Ça c'est Mais si on devait comparer l'efficacité de la dépense salariale par rapport à l'efficacité de la dépense politicienne, Wallahi, dépense hein. salariale peu efficace. C'est Attends, je vais répondre rapidement sur ça, quand même. Non, non, je, donne mon point de vue sur ça. Uh-huh. Le budget, quand même, euh, ça a été bien. Moi, je trouve que c'est très bien que le ministre des Finances communique sur le budget. pour moi, je trouve même qu'il n'a pas assez communiqué. Il faut que nous communiquer, décentraliser la communication. Nous, le budget, il faut que nous la la mobilisation des ressources internes xam nga budget dafa am ressources internes des ressources extérieures La mobilisation des ressources internes vraiment c'est exceptionnel c'est exceptionnel Les impôts, les wax les sociétés qui nga qui tirent ñoo nekk fonctionner tirer comme 200 milliards et tout ça les ressources internes yi privilèges. ci Si vous gisee investissement actuellement les 58 presque ressources internes lañ koy ci ci investissement bi budget bi c'est un budget qui cadre avec nos nos nos potentialités c'est-à-dire qui cadre avec nos possibilités nos possibilités financières Nous tax ñu ci communiquer gën communiquer nit ñi pour voir leen ni budget bi ñoom lañ ko fi ñoom lañ ko fi lañ tegal pour que ñoom aussi ñu am ce qu'on appelle le patriotisme fiscal ñuy fay impôt ñu savons que affaire bi lii la tali bii lañ ci que def bu ko faire nit ñi sawar fay impôt ñu plus de communication. Mais il faut que ça commence bon, par ngeen joxe exemple. comment de communication maintenant maintenant maintenant exemple rek s'il vous plaît dama koy saraxal foofu rek. il ah. faut que. Hmm. ñu commencer par joxe bu est-ce que xam nga ni tey. Hmm. député assemblée nationale yi nga xam ne ñooy voté la loi fiscale. wax man nu may fay impôt yow nooy fay impôt ak est-ce que xam nga ni nous, du faisons fay impôt. Ah le caisseur ne ne ne prélève pas les impôts on ne reverse pas et l'OLU, depuis aussi longtemps qu'on remonte le président Macky Sall a été président de l'Assemblée nationale Nous, avons dañu doon def ordre de recette nous fay li ñu war a fay kenn du fi fay impôt ci député yi nous ñu jógee dem di nationale c'est ça. non xam nga c'est les salaires xam nga l'impôt mhm. c'est les salaires normalement c'est une faute le quoi ministre des finances il y les services financiers qui que parce que parce que parce que parce que il faut faire les il faut faire les retours à la source. n'est pas des citoyens c'est des ah, fraudeurs. Ah, bah, bah, ils ne sont pas les seuls il faut il faut ma continuer xam nga problème la politique la politique de l'économie ñom ñoo de yore les routines ni ñu def ba mëna faylo fonctionnaire yépp mëna faylo fayloo ñëpp def leen nonu mo gën ngeen di wax personne ne peut actuellement pourquoi entrepreneur bi du dem fay impôt de son propre gré mais parce que y a pas de contrainte bu amul woon ñu ne booy soumissionné appel d'offre ñu de indil casier fiscal ñu bëri duñu fay. il faut créer il faut créer il faut créer il faut il faut créer il faut il faut créer des contraintes c'est votre rôle. ça suppose que voilà que ce que je dis des fonctionnaires defu leen seen liggéey def leen seen liggéey il faut aller les imposer. xamoo système bi nu muy doxee il faut aller les imposer le système ne marche pas comme ça. le système de la retenue à la source. c'est le questeur. de l'Assemblée nationale buy fay. mais questeur bi boo ko dul def ngeen ngeen ngeen bindu ko. attends boo ko bindee. ñu ne fayuñu non non non non voilà les les Les important important. Ah, ah. la mobilisation c'est-à-dire la mobilisation des ressources internes budget et deuxièmement budget bi important cohérence c'est-à-dire alignement stratégique du budget avec am e. budget bi dañ trois axes les trois axes axe transformation structurelle Il faut fa montant axe euh, capital capital humain ñu def fa benn moom acte acte euh, gouvernance paix sécurité état de droit ñu def ci montant. donc le PSE le le le budget est là pour la mise en œuvre vraiment efficace du PSE. voilà y' a y' a vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant léegi ce que je propose mooy Sonko ci côté économie am na lu bari loo xamante ni war nañ ko ci war nañ ko ci mën wax. donc li gaay di wax naan face to face mënul mënul ñàkk ci li ci réew mi ñu waxtaane lépp loo xam ne dafa jóg ci ci wàllu budget bi nañ ko war a muuleeg lépp décorté ko ko ba ni na nit ñi dinañu xam li nga wala auditeur bi di déglu am na xóotal bi mu ci gënoon a bëgg waaye waaw loolu mooy peut-être problème débat wax naa ko wax naa ko sax bi ñuy wax nee naa la est-ce que dinañ mën a dugg ci biir. ba sori. parce que lu ñu war a wax cax ci ci réew mi dafa bëri te émission bi mu neexee mooy peut-être suñu boolee les questions strictement politiques ak les questions de gouvernance tekki les questions économiques man pour man les acteurs politiques de ce pays dafa jot léegi bëri na acteurs politiques yoo xam ne surtout ci seen i parti ñoom tey mun nañ fi toog di mbow suba ba ngoon jot. naan euh, leader sangam nangam nangam te soo leen càmbaree ci ci li nga xam ne mooy war a intéressé askan wi mooy li war a intéressé gouvernance ak li jëmale kanam mun nañ ci wax ñaar wala ñett looloo yàq politique gu Sénégal ma rafetlu sama vis-à-vis wax dëgg yàlla débat bi neex na te xam naa ni galgal na ma galgal yu métti mais mais mais ñun li ñu bëgg rek mooy hmm. débat yooyu mu doon débat yu gën a yu ñu gën a démocratiser te débat yu mel ni émission yu mel ni dañuy permettre ñu gën mën a dugg voilà yow yow yow. ñu ngi il faut que li mu wax wax d'accord ci il faut que ñu jël temps pour expliquer parce que le débat aussi c'est pas pour nous c'est pour les les téléspectateurs ñu xam li état bi di liggéey xam nga sank wax na ni parce que amuñu bilan motax nous avons dans tous les secteurs agriculture liñ ci def depuis l'indépendance que mësu ko ci def. infrastructure liñ ci def depuis l'indépendance que mësu ko ci def. éducation éducation éducation éducation dama lay wax éducation. éducation defagu leen tiers moom Mamadou Dia nag Mamadou Dia nag. voilà programme bi mu amoon xam nga jotu ko réaliser. programme bi mu amoon actuellement y' a que président Macky Sall. qui est en train de de de de xam naa ko kay. c'est totalement différent mu leen di di leen sant mu nekkoon seen émission li ci mi ci télévision leader mu di euh, Sen TV. Euh, ponk yu bari bëggoon nañ ko wax. il a Touba bi ci wax COP 21 war nañ ko wax il a a Touba bi da nga commencé na. Ah, commencé milliards, 400, milliards 480 milliards non 416 dafa am bu de euh, les les les les les en place ñun li ñu un banque centrale Chine accord de financement entreprise il a amené au moins 300 agents, dépôts ñu commencé ñu recruter fay nañ assurance beeg yëpp. gis nga loolu. waay Ila Touba bi. li ne ci biir yëpp. Hmm. dañuy organiser benn émission boo xam. il faut ñu organiser benn émission ci ne parce que euh, gis nga yàkkamti ak bugg a am bilan ak am fixation ci réélection rek waroon na mun a génne 3000 milliards. ndax soo seetee lu ñu bàyyi ci ci ci biti mooy tey soo jëlee li ñu sécuriser mooy quelques grandes entreprises ak les salariés yi nga xam ne mënuñoo mucc. secteur informel réew fiscalisé wu ko soo li wax les niches fiscales yi nga xam ne exonération yu doy waar yu nekk ci code minier ak nous ak yeneen loolu rek mënoon na tax ci mobiliser lu milliards mais débat bi ni nga ko posé noonu la gouvernement bi def beaucoup de communication sibur naa ministre des finances ñëw à la RTS ne budget record etc., etc ñu teg ci ñaari fan ministre du budget ak euh, secrétaire général gouvernement defe naa def conférence de presse mais ndam naan soit dañoo nekk régime bu amul benn bilan ba nga xam ne lu ne nga jàppandu ci ne bilan la wala dañoo dañuy def maa tey xam nga lan moo ne ci bilan bi soo jëlee bilan soo jëlee budget bi budget bi amul benn progression extraordinaire par rapport ak li fi daan am budget bi par rapport ak budget daaw 3022 milliards yi soo ko comparé ak bu daaw bi 153 milliards lañ ci yokk ma njëkk wax ni budget prévision la dañu naan lii la ñu bëgg a am ren ñu xayma ko à partir de li ñu amoon daaw xool tendance économique yi waa DPE def seen progrès seen seen seen seen projection ak yooyu ñu ne lii la ñu yaakaar a am ren mais yaakaar googu mosuñu ko am presque société at wu ne dina am minimum ñaari loi de finances rectificative li muy firndal rek mooy prévision yi baaxul parce que bu daw bi rek 100 milliards de prévision yi ñu defoon ñaari loi de finances rectificative donc prévision la ben ñaarel bi budget bi 5,53% mo 153 milliards en valeur et en pourcentage 5,53%. Société budget daw 223 milliards mo ci yok progression bi ñu des fonds, sax mo parce que c'était 12 Nous avons togué ba Ablaye Wade bi muy en 2000 budget bi 587 milliards la won, la fi PS bàyyi won bi muy quitté et quelques milliards Donc donc budget fay progresser c'est tout à fait normal parce que ce progrès est rek moy économie réew ma taxaw na administration yi liggéeyuñu ñu etc. y a rien d'extraordinaire dans ce budget Sous le chiffre 3000 nak mo titre, tiital dama demande toujours firnde bi may joxe moy da nga bi ñuy nekk xale dañoo yàgg dégg l'an 2000 l'an 2000 l'an 2000 ba jàppoon nañ ni l'an 2000 affaire bu extraordinaire l'an benn at la woon rek comme at yëpp budget bi bi ñuy jël indépendance 17 milliards la ñu démarré woon en 1960. muy progressé 19 milliards 19 milliards. recette fiscale moo doon 17. ñuy progressé di progressé di donc c'est normal chaque année ñu yokk li yoon mooy d'ici 5 ans ñu egg 5000 milliards wala feneen ak feneen. donc man gisuma lu extraordinaire su dee su dee ci forme bi rek defuñu fi exploit bu ñu bu ñu deful lu ko raw ya a des années am na ay années yoo xam ne 2005 ma daanelee foofu on ay eu pour cent de progression budgétaire 2005 ñoom bi ñu ñëwee ba léegi dépassé gu ñu pour cent de progression budgétaire donc jàpp naa ni loolu jarul tout cet tintamarre la maintenant rek mun nañu dugg après ci fond bi ñu analyser budget bi. niñ ko tëralee ak lan moy orientation budget bi ci forme bi rek la ko doon wax. voilà donc euh, budget bi quand même il faut que xam nga le budget ça retrace l'ensemble des recettes et des dépenses bo bo démé ba def ay projection budgétaire hein projection budgétaire 3022 milliards nga xam ni yow man nga tirer ci say ressources internes près de plus de 1600 milliards leneen li nga jéggaani ko ñu la parce que buñ la la wul tu peux pas gérer ton déficit donc mom moo lay woon ni que. Ah, c'est une gouvernance fiable gouvernance fiable c'est que euh, générer autant de ressources pour def budget parce que budget c'est pour quand même euh, euh, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations ah, vraiment donc bu une évolution 3 3000 milliards moins qu'actuellement, actuellement le budget c'est-à-dire on rentre dans une dynamique de productivité de productivité et tek nañu tek nañu ay ay ay programme yi ça peut attirer un, un, programme de gouvernance fiable une stratégie crédible il y a que ça qui peut faire attirer les investisseurs publics et privés donc budget bi c'est extrêmement important parce que budget de mom vraiment définir quelle est la stabilité stabilité économique de quoi est-ce que le bi il a assez de capacités pour régler problème tel problème mën régler tel route mën régler tel investissement mën régler éducation. non bàyyi ma terminer Si l'État état bi moo défaillir. Mm. su dee état bi moo défaillir ñun dañuy yóbbu tribunal arbitral gis nañ ko fii dans la la la les mines de la Falémé les sud-africains bi état bi défailliré dañoo au tribunal arbitral ñu condamné nañu état Sénégal mi ngi koy fay ba tey mais ñun bi défaillir, défailliré ñu yóbbu ko tribunal arbitral ñu jox ñu raison 250 milliards yéen yéen a jël sen, sen, sen responsabilité. Le président Macky Sall et son ministre des Finances ne def nañ ko 75 milliards. non non au nom de quoi alors que ñun ñu ngi fay nañu ko ndam c'est-à-dire il faut que l'État il faut que l'État arrête il faut que l'État arrête de couvrir ce banditisme financier sur le dos du peuple sénégalais. non non non non non ça ne s'est pas passé comme ça xam nga affaire bi da ngay xool xam nga tribunal arbitral boo fa demee. léeg 30 secondes. boo fa demee. dañuy dañuy dañuy sele affaire bi yoo xam nga dañ koy sele inspecteur des impôts nga dañ koy sele bu ñu ko sele affaire bi kenn du ko laal kan mooy perte. Sénégal moy perte parce que ñun dañu am production bu ñu wara transformer Sénégal moy perte affaire euh, Metal bi nga wax aussi le tribunal n'a jamais attribué 250 milliards à l'État jamais du tout. Ah jamais mais mais il faut il faut être cohérent parce que ñun Kumba Rusus Kumba Rusus Kumba Rusus bi ko jëlé bi jëlé affaire bi parce que euh bi bi ko nous Wade par force. parce que ni les intérêts xaw ma lan ko par force jaay ko jaay jaay ko ki Kumba Rusus bi mu ñu porté plainte ñaar lañu fay ñaata lañu biñu bi porté plainte ñu dem tribunal arbitral 49 milliards lañ ko fay. mais donc sur la même affaire nan nga bëgg ñu fay ñu ñu fay ñu 250 milliards. amul c'est pas possible lañ ko joxoon Mittal c'est que bokkul. non joxé wuñ ko 250 milliards. état attendez attendez Ablaye dafa jox Kumba ressources Kumba ressources commencé installé Mital, Mittal tek plus sur la table ne damay investir 250 milliards. ci jamono jojo joxe investissement bàyyi ci jamono ah boobu ñu créer une loi spéciale la 2007 25 ma article mais c'est une loi dangereuse Nous sommes désormais entreprises. entreprise bu investir 250 milliards da ngay tous les avantages cumulés du code des investissements du code minier et tous les autres codes qui donnent des dérogations on avait dit c'est grave c'est sur cette base-là cette promesse d'investir 250 milliards qui est une promesse synalagmatique nous def ko contrat avec l'État du Sénégal sur base de la ñu quand Arsenal a failli ci base boobu lañ ko yóbbu devant le tribunal mais on nous a pas condamné à payer mais li ma ah, li ma on n'a jamais condamné Mittal à payer deux milliards amul loolu musul am Sonko loolu amul ah, c'est ça amul euh, ci réew la télévision leader Sen TV ñu dem régi seetaan publicité dellu soit ci waxtaan mbokk jullit yi weeru koor ak aji mag dañu am solo lool ci jullit looloo waral joni joni fas yéene leen taxaw bu baax di maye fukki billet Makka fii ba le 30 juin 2016 yemul foofu de ndax bés bu nekk joni joni dina tànn ci ay clientam jox leen suukaru koor ak ay enveloppe pour 100000 francs

jópp ci koppar war dañ ko ci def ñu ngi koy wax waaye liggéey ba dooragul ba léegi am na lu ko gàllankoor at gannaaw ba ñu tegee xeer wi ak euh, léegi euh, Sonko dañuy waxtaan ak yow rek lu aju ci ci budget bi trois mille nangam milliards ñu di ko tiitaroo alors ñu bari jàpp nañu ne ñun suñu musiba la ñuy tiitaroo euh, ndax ni ñu moolee budget bi dëppawul ak am amu Sénégal waaw xam nga loolu sax d'accord ma ci man jàpp naa ni budget bi niñ ko moolee am amu Sénégal munoon na weesu loolu suñu liggéeyoon ni ñu war a liggéeyee. Mhm. te mun naa ko firndeel. Euh, li ci gën a gàtt rek mooy objectif yi ñu jox les administrations fiscales lu mel ni impôt suñu defoon li ñu war a def ci impôt tey impôt impôt ñu wax mille milliards waaye moom.